ñu buñu jekko duñu baare ñu ngi ñëw neel sa gaay nañu baare man nag ngay jaay ni nga naan si dem tey rek ngay xam ni yow doo si lay fu nga sekkee man ni nga yow doo si gën sama jàpp bu ko takk léeg bidéew bi li ma jox dafa kër comme bidéew bi yéen ni nga yàqu dara nee si géew bi sama yoon dafa leer comme solaire bi bu dee man di def tàtt mooy solaire bi li may rek dafa neex fii doxoon dem gan seen bi la ma dëkk du ma doxoon dem ku ma nala tee fii dama doxoon am may baal ak géej gi doom mara si géej gi même teg ko géej gi moo nekk si géej lu mu métti métti ñuy jox ñun duñu daaw sama tim amul ko diir day ko woowee king fépp king partout même bi dafa gën di laaw xel si adel ma niga lesi kaana yëpp diga diina danga jaay man la ma niga man loo day rek ngeen dee jàpp sa rap duy ko juuta comparé ngay moo du loo comparé ngay moo yow boo jël sa temps yor sa lan bu gaaw si tijji porte ni chauffeur temps li nga rab li ñu ci yéen moo raw laaj ci bët jox li cër sa xel comme sa papa loolu ñu bokk geen bi da nga jàpp geen bi li gën a dul ci nag bi ñëw ko yaa ñu bari ñu jënd yar teg bi sa tat bi xaj bi xaj bi ko ñu si bi wax ji mooy bari doo ñu vaale comme Barça Real ñu ne féegi du ñu laale hey ñun bu ñu dekkoon du ñu baale ñoo ngi ñëw ñel sa gars yi nañu baale ñu si bi wax ji mooy fegi duñu baare on pasar lenga ñun la fegi laale hey ñun bu ñu dekko duñu baale ñu ngi toog ne sa gaay nañu baare isi bi wax ji mooy bari dooñu baare pompa sarea ñu nag feegi duñu laale hey ñun bu ñu dekko duñu baale ñoo ngi ñëw ne sa gaay nañu baare bi wax ji mooy bari dooñu Girl, do you it? Hey, you you jack or do you You know, you know, there's a guy in on your body. Nice, nice, nice. Nice, nice.